bu leen ko jàppee parti voté boo xam ne dañuy wut rek nit ñu nu woteel benn bés bu ci ëllëg saa ñu fàtte leen wala buñ tasee ñoom di moytu wala buñ xamee ne jaar nañ ci yoon ñu nu daw jaar cay waneen yoon wa ca des loolu yëkkatiwu ko parti la boo xam ne bii dafa bëgg yee Sénégal mbooloo mi ànd ak moom nu suqali Sénégal teg ko ci yoon wu jub moo xam ne bii li jëm kanam lépp dañu koy diisoo lu ci nekk it dañuy toog ñu diisoo ko bu jubee nu def ko bu dëngee nu bàyyi ko ni ngeen seen bureau tey yii lu man di ñëw ëllëg gi si biir noonu lañ koy defee xam ne nu lañ war a tabaxee itam danañu ko sart wan leen ko muy lu leer loo xam ne mën naa dugg ciy nopp ndaxte nit bu naxewul rek loo xam ne lii war na koo def man na ko wax ci waxeen wu leer loolu danañu indi ci ñaareel bi nax yi wan nu leen kon ne mbooloo lañu soxla mu yeewu xam fu mu jëm war a war a ànd di benn baat di jëmm jëmm war a yóotu li soxla jot ci loolu ni ñu koy defee suñu parti bi wan na leen ne bu nu ko bëggee def nan man a def di leen yee ci làmmiñ woo xam ne wii da ngeen koo xam ngeen namp ko nu naan leen damana damana ngeen naan xaang di ngeen ko itam naxi gouvernement bii fi nekk tey wane nañ ko ci loolu Sénégal bu ñu ko séddalee téeméeri cër juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax en tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne wii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowa làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq saxal na yi nga xam ne moom la wax bu dégg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mënoon waxoon ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doon laa jànguma daal di tiit defe ne li ñuy wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen fab yet dégg nga loolu bu fekkee bëgg nañoo yor da ngeen di xam ne réew moo xam ne mii dañu koo not lu yàgg nit ñi seenum xel sax day ràgg fi mu nekk xelum nit ñi dafa ràgg fi mu nekk ndaxte bu dul woon loolu da ngeen gis ni mu juunoo tey ni mu juunoo tey ay nit ñi ñun ñu dajaloo ñoom ñëpp ñu dégg wolof ñu ne fa ñukk wolof ya di wax lan ñoo xam ne ku ci nekk dañ koy nax naxal dégg nga fi mu nekk tey bu Sénégal tasee ak Gambie ñu waa Banjul ay wolof la ñu dégg dégg waa Sénégal ay wolof la ñuy wax te bu ñu dajaloo dañuy fab interprète ñoom ñaar ñëpp ku ci ne dama ne kenn ci mën ko ne ah dégg dañu koy wax ci français ñu tekki ko ci anglais ci dellu wax ci anglais ñu tekki ko ci français kon nag ngeen xam ne léegi nun pro tubaab yi lañu fi mu nekk loolu mooy xel yu ràgg xel yu ràgg bu ñu demee ba ca kanam bu ngeen geesoo seen ginnaaw bu ñu suñu parti bi nekkee delluwaat di tàggat seenum xel di leen yee bu ñu doxee tuuti bu ngeen geesoo da gis loolu ni mu juunoo tey ndaxte xeeb sa bopp da xeeb sa bopp ba lu laal ci yow nga xeeb ko fi mu nekk xeeb ngeen kàllaamu nit ku ñuul dafa ngeen nit ku ñuul dafa ngeen nit ku ñuul daanaka du dara te làmmiñu nit ku ñuul bu ñu doon topp cosaanam a a wax ci tubaab mën nga koo te itam mënu a yor réew mi mukk yorin wu rafet te yoruñu ko ci làmmiñu nit ñu lool na ngeen ci dañ dañ kumpa ku leen ne mën naa yor réew mi ci làmmiñu tubaab yemale nit ñi waxul dëgg ndaxte yéen a ngi nii yéen ñëpp a nii kenn mënu cee nekk béykat ndaxte kenn mënu ci feru ci ci tubaab bu ko defee bu ngeen di falub député kenn ci ñun ñu ngi leen di fat koo xam ne kii xamul dara ci lu xew ci seen i seen i i itte xamul dara ci seen i problème xamul dara ci seen i itte xamul lu béykat da ngeen di fab da di fab li ngeen daan tuddee tubaab bu ñuul jëmu jëf moom ngeen di moom ngeen di fab ndaxte nee nañu assemblée nationale fa ñuy toog fa ñuy dem di tawate nee nañu nee nañu néegub tawatukaay ba néegub tawatukaay ba ay tubaab la ñu fay wax kon ku fa waxuli tubaab rek ku fa mën la ñëxal ciy tubaab doo fa mën a dem ba tax na bu ngeen dajaloo yéen ñëpp tey di waa Daaru Salaam kenn ci seen biir na ngeen mën a def da ngay tànn ki ci ki a mën a nëxal dara ci tubaab yóbbu te baykat yi nekk fi xam ne réew mi nekkee day mu kàllaf réew mépp di waxi wolof te nga xam ne bu ñu ko doon wax ci wolof doona kenn mag muñ jël ci yéen kenn gënu koo neexum xel mënoo koo jaar fenn boo ko waxee ay ajoor bu ko defee bu ngeen toogee la wax ci assemblée nationale weesuwul lu a jaayee gerte gi ak lu tax ñu war ko koo jaayee ak nu bekkoor bi demee ak a teg te li feeg waxuñu ko ci wolof dañ leen di nax képp dañ leen di tóoj na ngeen ko xam kon nag réew mi bu ñu leen mën nañoo yemale ci làmmiñu jàmbur waxuñu dëgg ndaxte bu ñu làmmiñu jàmbur ñu ko fi dégg mësuñu asaka réew mi kon nag ñu jiite réew mi ci asaka jooju rek la ñuy ba faw kon nag dégg nga mënuñoo yemale démocratie mënu fee am li feeg ñu ngi yor lii mu ci làmmiñu tubaab loolu war na leen ci jëkkëyee socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor réew mi ci làmmiñu tubaab ndaxte asakay réew mi képp ñoo fi dégg tubaab kon nag mënoo def socialisme ak asakay réew mi li li feeg dégg réew mi ci làmmiñu tubaab la ko yor kenn mënu koo tabax ndax mënoo tabax am réew ak asakay réew mi yooyu yëpp na ngeen ko xam développement bi ñuy wax waxuñu dëgg mën la am démocratie mënu fee am socialisme mënu fee am li feeg ñu ngi yor réew mi ci làmmiñu tubaab te yoruñu ko ci làmmiñ nga xam ne moom ngeen dégg waaye làmmiñu tubaab la ñu fab kon ñage ko seen diggante ak mbooloo mi ba duñu dégg li mbooloo mi tawat dégg nga bu ko defee mbooloo mi xeeb boppam nangu rek dégg nga ñu war ci ginnaawam ba faaw loolu itam suñu parti moo leen ci war a yee dégg nga bu ngeen xam ni ci addina mooy xam ne yii waroon nañ leen cee yee ma bëgg itam xam ne kon suñu parti wax naa leen du leen yombalal lu jafe suñu parti bi parti boo xam ne lii ko yëkkati gis ngeen ko gouvernement bi ànd ak sagoom Senghor gis ngeen ko bu parti bi xisee taxaw lu mu xam fi mu nekk ma nga cay dem guddeeg bëccëg nee naa leen itam loolu ci ngeen war a def seen yaakaar yëpp ndax parti bu mel nii bu nu ko sampee ngeen defee ne waru fee mën a taxaw ndax ginnaaw Senghor nee na déet kon nag nu ñuy def li ñuy def a ngi nii ñaareel a ngi nii parti baa ngi nii di dox léegi journal bu ngeen ubbi ci àddina dañuy wax ne Sénégal sunu parti bi képp moo fi nekk dañuy wax ne Sénégal suñu parti bi képp moo fi parti d'opposition te élection yu mu bokkul ay nax la <coughs> wax naa leen ne bu ngeen jëlee journalu Afrique Algérie bu 4 8 septembre gis ngeen ko moom lañ ci wax bu ngeen jëlee le monde bu crée euh, c'était quelle date encore 15 15 novembre moom lañ ci wax dégg nga wane nañ ne tubaab yi nee nañu suñu parti bi élection yu mu bokkul ay nax la ndaxte moom rek moo fi parti bi dëgg-dëgg boo xam ne bii bëtt na te itam moom képp la gouvernement bi ragal mboolem diplomate yi nga xam ne ñoo nekk fii ci nekkal ci réewu jàmbur yépp nee nañu suñ parti bi képp la gouvernement bi ragal moo tax ba ñemewul a dem ak moom ci élection kon nag li ñàkk a joxe récépissé gi ngeen di dégg lu mu ko lu mu ko lu mu ko jënde woon rek jaru ko lu mu ko doon nëbbe feeñ na ndaxte ñu ngi ci jublu woon ñu ngi ci jublu woon kenn bañ a xam ne la leen nekk na ci Sénégal lu dul li mu fii samp samplu la leen nekk na ci Sénégal la leen lu dul loolu la bañoon te léegi nag ñëpp xam na ne parti ngi fi boobu dëgg-dëgg boo xam ne moom képp la tiit te boobu moo yor nit ñi te boobu bu taxawee dégg nga duñu bokk taxaw dégg nga dëkkal réew mi lañ mën a def benn ciy taxaw loolu sénégal gépp xam na ko kon nag loolu te li ko mayee dégg nga jëf la bu fekkonte ne dañoo samp parti bi rek kenn ak seen taxaw dégg nga di néglu ci coobareem rek mu ne waaw kon lépp doxee na fi tàgg tàbbi géej ñaar at ngi ni waaye li fi sunu parti bi def te mu naqari ko te mënu koo tere loolu moo waral tey jii nu ba fii ngeen gis ko ndaxte bu leen defee ne addina kenn wéete na ko ba mën a wéy ci coobareem ba faaw bu leen sengoor ne mën naa wéy ci coobareem ba faaw dégg ba lu ko neex mu teg ko waxul dëgg dégg nga mu nekk dañ leen a yee loolu mooy sunu ñetteel bi yeete ngeen xam ne kosug réew mi ngeen kosug réew dafa am lu ñu ko sañal ak lu ñu ko sañalul ay atte la ñuy def yoo xam ne yi bu fekkente ne atte yi ñëpp a ci ku ko war a teg teg la ko kon danañu am soxla ci atte yi def nañu ay alte yoo xam yi sax bon gi ëpp na fàttaliku ngeen ne man alte yooyu ba ñu ko defee fii muy constitution Sénégal bi wër naa Sénégal ci fukki at ak eh, ci fukki fan ak ñett maa ngi bay ñang mi ak ñu nu àndaloon fu nekk taxaw nañu ko ne leen ay nax la yoo xam ne yéen a ngi fal buur fari bu leen ko def lank leen eh, lu tax ngeen di ko tey di ak bum di ko takk seen baat di jébbale waxoon nañ leen leen constitution bi mooy atte bu mag bi nga xam ne ci la ñuy tibbe jee lëgg ci biir atte yu ndaw yi ñu leen di gigan yépp ni ngeen di tekke seen jabar ëllëg dégg nga ni ngeen di ngéntee ni ngeen di suule seen i néew ci la aju dégg bu leen ko tey di ko def loolu du woon ay député du woon dara waroon a wax képp wax la mu ngi noonu loolu it wan na leen dégg ngeen ni nuy liggéeyee léegi constitution boobu moom képp ka bon li mu tëral a kës néew may na suñ parti bi taxaw ci la ñu tëral parti bi taxawal ko Senghor wàcc na xaat constitution boobu ndaxte constitution bi saa yu ko jaaxalee rek dégg mu daal di koy bëgg a wàcc fee dégg nga di wéy ci coobareem loolu moom lañ foofu noo ngi dem ak moom tribunal li fi des ci attekas néew danoo bëgg a xam ndax ñëpp a ci yem wala déet su fekkente ne ñëpp a ci yem dégg nga danoon am soxla ci atte yooyu waaye bu ci ñëpp yemee kenn mën la teleson suñu parti taxaw bu fekkee ñëpp yemu ci nag atte yi kon kenn duuti ci am soxla loolu foofu lañ toll ak moom gis ngeen ko yéen a ngi doon nax seen bopp defe woon ne fi mu nekk yóbbu woon nañ seenu fit ba ngeen defee ne nit bu la xisee jekku rek ba lu nekk sañ na la koo teg te yow mënoo wax dara waaye loolu amul waxuñu leen ko bu leen ko loolu parti bi moo leen ci wàll yee léegi Sénégal du pax moo xam ne mii rek Senghor da koy muur ab jar ba noppi dem càll ba naan nanga fa xew dégg nga li am réew dafa am ci biir ak ci bitti te ci bitti ñi yor parti bi Senghor surtout leen loxo kon nag fu mu jot ci bitti jot nañ fa li ci des nag mooy li li gënam ci biir réew mi képp foofu la foofu la liggéey bi nekk mbooloo mi fi nekk ca gëlëm ba defee ne lu nekk sañ na ko ba defee ne lu nekk sañal nañu ko ko te nun nu a yee mbooloo moom war a ànd ak moom defar réew mi foofu képp la liggéey bi nekk waaye surtout kenn bi dégg nga loxo ci bitim réew loolu na ngeen ko xam te dégg nga te te aw yorin lu nekk ci àddina biir ak bitti ñooy dajaloo di ko def fii mu nekk suñu parti baa ngi nii judd na ci lu ko naqari mi ngi gëmm fatus ne du ma ko xool waaye boo gën a mel ne du gis bant bi ne terewul jël ci jant baa ngi ci asamaan si